seen mbokk mooy nuyoo muxtaar mbàkke moom sëriñ mohamadu sëriñ muxtaar xëri moom borom saam soxna faati mbàkke moom sëriñ cheikh pend bu yo moom sëriñ moor moom soxna jaara noo ngi leen di ziyaare bu baax ñi nekk ci ëtt bi yépp ëtt di assamadiya di ci jiital suñu way jur suñu kilifa Serigne Abdou Saman Mbàkke moom Serigne Souhaïbou Mbàkke di ko ziyaara bu baax te di ñaan yàlla mu gën ko dolli tawféexi sëriñ bi di ko jéggalu bu baaxit ci kàddu yi nga xam ne moom lañuy yëkkati waaye lépp dëppoo rekk ak ndigalam mu sàkku woon ñu def aw waxtaan woo xam ne wii dañ koy def ci sëriñ moor moom soxna jaar e, nuy sant itam di ko seereel sëriñ bi suñu mbokk suñu kilifa sëriñ abo moom sëriñ basiiru moor ci taxawaayam yi nga xam ne moom la am ci kër gi ak itam ni mu ñuy teetee ba tax na moom sax ci la ndigal li jaare ba incha allahu taala ñu fas yéene def ay tënk yoo xam ne ni day aju ci dunduk sëriñ moor moom soxna jaara ni ko sëriñ bi sàkkoo soobe yàlla fa yéene nañoo indi ci leeral yu doy sëkk lum ci doonit it ñu xam ne Eh, ci ay cëslaay yu wér lañu ko tuxale eh, te mbokk yi dañoo yëgoon ne ameel nañ murid yépp eh, ameel nañ jullit yépp waru garu gëstu bu baax dundu sëriñ moor moom soxna jaara ngir murit yépp gën koo bàyyi xel murid yépp gën dolliku ci ay jaar-jaaram xam-xam ndax xam nañ ni murit yépp ko ëmbal ak cofeel ndax li mu doon ci sëriñ bi ak li mu doon ci yoon wi lool nag day tekki ne eh, yell na lool ñu defal leen ci coono yamu laaj ak xóotali gëstu yamu laaj ngir indil leen ak dundam ca na mu gën a leere incha allahu taala lool lañ fas yéene seq ak yéen waxtaane sëriñ moor moom soxna jaara nag xëy na mënees naa jàpp ne luy jafe la ci ak wet ngir ne day mag mu fi yàgg jóge waaye tamit lu yomb la ci ak wet ndax mboolem cëslaay yi ñuy soxla ngir xam dundu doomu aadama bi rek suñu boroom defal nañu tawfeex ba mu jàppandi te tawfeex ji sax ni mu gën a yaatoo mooy sëriñ bi digle gi mu digle woon ñu bind ci moom nga xam ne booy topp bindu mag ñi li mag ñi bind ci moom day mel ne mën nga ci génne siiraam ak jaar-jaaram yu baree bari kon ñuy santaat bu baax suñu kilifa gu baax gi di Sëriñ Abdou Samad xam nañ ne lii mu ñuy sant nii e, da cee jubloo rek yaatal ak wane ne ñun ñépp ay njabootam lañ mu saññoo liggéeyloo ci fànn gi waaye xam nañ ne moom yàlla dogal na mu doon ci cëslaay yi nga xam ne dañuy dellu ci ñoom ngir topp dundu mag ñi kon nag noon koy sant di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ tuuba radiallahu anhu wa nafaana bihi ngir rekk gën a yaatal ak dundam rawatina itam gën a yaatal dundu mag ñi ak murid yépp xam leen tàmb indi kan mooy sëriñ moor jaara ci aw askanam moom sëriñ moor moom soxna jaara nag jëfewuta xamle ci aw askanam ndax bu fekkee ne danga ne diw mook sëriñ tuuba ñoo bokk ñaari wayjur kooku moom daanaka lool rekk doy na sëkk ci tudd aw askanam kon woy juram mooy sëriñ moor anta sali mi ñépp xam ci tedd nga ak xam-xam akuk baax akuk jiitu ni ko sëriñ bi saxale ci xasida googu nga xam ne moom la defoon ci moom te mu tàmbale ayaa man baal ulum woy di soxna mariama buso muy soxna jaara soxna jaara nag doon koo xam ni kii boo ko tuddee rek mu doy sëkk ndax liggéeyam bu yaatu ak taxawaayam yu ràññeeku tax na mu nekk alam boo xam ni bii fu ñu ko tudde rek ñu xam ko soxna jaara mooy way juram moom nag du taawu sëriñ Mor Anta Sali ndax sëriñ Mbàkke Anta moo ko mag waaye nag mooy taawu soxna jaara ndax moom la soxna si njëkk a gis ci ak leer mu feeñ jamono ci jamono yi 1267 ci gàddaay bi day mel ne boo koy xool day tolloog 1850 ci la feeñ jamono ci mbakke bawal ci diggante ñaari wayjur yooyu nga xam ne mooy sëriñ Mor Anta Sali mu baax mi ñu xam ak soxna jaara Mariama Buso mi nga xam ne eh, aw turam sax saa yu ñu koy tudd rek eh, dolliwaale ko ci dégg na sëriñ Abdou Samad mi di leeral ci fan yële rek ne sëriñ bi doon na wax na nañ ko tudde nañ koy wooye borom saam ngir ni ñu koy woye dafa lëkkaloo ak soxna si te day bañ ku sàllalu soxna si kon loolu mooy aw askanam moom sëriñ moor moom soxna jaara nag jëfewuta xamle ci aw askanam ndax bu fekkee ne danga ne diw mook sëriñ tuuba ñoo bokk ñaari wayjur kooku moom daanaka lool rekk doy na doy na sëkk ci tudd aw askanam kon wayjuram mooy sëriñ moor anta sëli mi ñépp xam ci tedd nga ak xam-xam akuk baax akuk jiitu ni ko sëriñ bi saxale ci xasida googu nga xam ne moom la defoon ci moom te mu tàmbale ayaa man baal ulum way juram di soxna Mariama Buso muy soxna jaara soxna jaara nag doon koo xam ne kii boo ko tuddee rek mu doy sëkk ndax liggéeyam bu yaatu ak taxawaayam yu ràññeeku tax na mu nekk alam boo xam ni bii fu ñu ko tudde rek ñu xam ko soxna jaara mooy way moom nag du taawu sëriñ Mor Anta Sali ndax sëriñ Mbàkke Anta moo mag waaye nag mooy taawu soxna jaara ndax moom la soxna si njëkk a gis ci ak leer mu feeñ jamono ci jamonoy 1267 ci gàddaay bi day mel ne boo koy xool day tolloog 1850 ci la feeñ jamono ci mbàkke bawal ci diggante ñaari wayjur yooyu nga xam ne mooy sëriñ Mor Anta mu baax mi ñu xam ak soxna jaara Mariama buso mi nga xam ne eh, aw turam sax saa yu ñu koy tudd rek eh, dolliwaale ko ci dégg na Sëriñ Abdu Samad mii di leeral ci fan yële rek ne sëriñ bi doon na wax ne nañ ko tudde nañ koy wooye borom sam ngir ni ñu koy wooye dafa lëkkaloo ak soxna si te day day bañ ku sàllalu soxna si ci wàllu njàngam xam ngeen ne moom eh, bia muy environnement bi nga xam ne ci la feeñe jamono rek day wane ne kii day eh, ku màgg la koo xam ne kii eh, fii mu feeñe moom li wér te wóor mooy kilifa rek moo fi mën a moo feeñe loolu moo tax am na ci naar boo xam ne ki boo demee ci way yamu def ca moom dana ci màndargaal loolu di ko ci firndeel di wax ne alwaarith al majda arrafic alxaalisi mutawaarithan min muxtadin min muxtadi xam ne tedd nga tedd ngay jikko ak kawe ay jikko yu rafet daf ko dond jële ko ci way juram ñu jële ko ci ay maamam kon moom ci ëtt bu barkeel boobu di ëttub sëriñ Mor Anta Sali ak soxna Mariama Buso néeg soxna Mariama Buso soxna jaara ci la feeñe jamono mu nekk koo xam ne kii nag soxna si teel na ko waajal ni sëriñ Basiiru nettale ci minan wax ne soxna si bokkoon na ci ay taxawaayam muy waajal ay njabootam di leen am yum leen di faral di nettali gis ngeen sax nettali boobu nga xam ne mu ne bokk na ci lim leen daa wax muy min dabi saalixiina xiyaamu leyl njaboot googu sëriñ basiiru di wax ne soxna si daana leen waajal ci anam googu nag sëriñ moor jaar moo ci jiitu ba tax na moom jàpp naa ni ñépp xam nañ ne ci e, gawari guddi yi la gawari guddi yi la bokkoon te loolu lépp waajtaay woowee moo ko waral nga xam ne kon moom garaati ngëneel daf ko takk laata muy toll ci ñu war a teg alliwo ci ay tànkam ngir mu war a jàng bi mu demee ba toll ci wàllu jàng demee ba toll ci wàllu war a jàng nag woy juram sëriñ moor anta sali moo ko dalal am njàng jàngal na ko dara ci alquraanul karim wax nañ ne jànge na ci sëriñ sàmbatu tukkuloor ka wax nañ ne jaar na ci moom wax nañ ne jaar na ci sëriñ bàlla jatara mu mag ci daara jim yoroon ci mbàkke wax nañ ay kilifa yoo xam ne ni fekkante woon na ñoom fële ca saalum bañ fa nekkee am lu mu jàng ci ñoom wax nañ ñeneen waaye li wérte wóor daal mooy li ëpp ci xam-xamam bu weesoo way juram mu ngi ko jële ci nijaayam sëriñ bu soobe ndax dafa mel ne sëriñ Moor Jaara moom buñ ko doon wax mën nañoo wax ne moom kat mbàkke aw sant dong la fa jële waaye léppam léppam sëriñ léppam sëriñ bu soobe la léppam sëriñ bu soobe la kon moom sëriñ bu soobe moo ko eggaleel am njàng eh, moo ko jàngal eggaleel alquranul karim moo ko jàngal yi ëpp ci fànni xam-xam yi bu weesoo benn benn yooyu nga xam ne daal daana fa dem léeg-léeg mu am lum fa dolli ko eh, li ëpp ci am njàngam mi ngi ko jànge ci diggante wayjuram rawatina nijaayam sëriñ bu soobe moomu nga xam ne sax moom la ko wayjuram farele won ba mu doonee tu tànk rek la ko wayjuram sëriñ morant sëli jëloon jox ko nijaayam sëriñ bu soobe féetale ko ak moom nga xam ne ñu bari bu ñuy topp histoire yoon wi ñaare lépp lu ñuy tudd sëriñ moor anta sali duñ ci faral di dégg turu sëriñ moor moom soxna jaara donte ne moo doonoon doomam ju mag ci ñi fi nekkoon loolu sabab si ci ñi nga xam ne xam nañ na histoire ba tëdde dañuy xam ne sabab bi lenn dong la mooy sëriñ moor kat moom cërub sëriñ bu soobe la woon cërub sëriñ bu soobe la woon daanaka mësta nekk ak baayam mboolem bam ko joxee sëriñ bu soobe rek la noppee nekk ak moom sëriñ bu soobe la nekkal ba ba jaar-jaaram yépp ak fi mu aw fépp ci ndigalu sëriñ bu soobe fu mas di nekk ci ndigalu sëriñ bu soobe la fa nekke lu mu mas nekk itam ci ndigalu sëriñ bu soobe la ca nekke ba lool yi rek mooy mbiram mi ngi ñàkk kilifa dal keroog bi sëriñ bu soobe nelawe keroog bi sëriñ bu soobe nelawee la door a ñàkk way jur kon moom ci diggante yu tedd yooyu ci la jànge xam-xam ci la jànge alquran itam ba yàlla def mu mujj nekk koo xam ne ki mooy dellukaay bi ci fànn yépp bi ci fànn yépp ni ko naar ba waxe woon ne ya aala balla buliitum bil xusuusi maan bi mawti aalimi ardil garbi muftiha waa nga xam ne kon foofu la tolloon ci xam-xam mu nekk koo xam ne kii nag ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ci ñooñu nga xam ne ñooy ay kilifaam te daroon ko e, te teel a mokkal alxuraan lool teel a peeg mboolem fànni xam-xam yi am na ci ñi bind ci moom ko wax loolu ne alxaafiza alquraana waqta sibaa'ihi wa kaza aluluuma fa saara xasdal mujtadi nga xam ne kon moom ku teela wattu alquraan la ku teela peeg mboolem fànni xam-xam yi la mu nekk koo xam ni ki xam-xam boobu nga xam ne daf ko teel a am ak alquran jooju daf ko gunge woon ak waajtaay wi nga xam ne moom la soxna Mariam bu so soxna jaara doon ko waajal ba nga xam ne jikko yu kawe la la lëkkale ak alquranam jooju ak xam-xamam boobu am na ci naar yi bind ci moom ku saxal loolu ne ma zaala musnitat alayhi tamaimu marfuca amrin bilmakaarimi murtadi mm, sëriñ moor mësta deñ di ku kawe ay jikko te loolu ca ak rawam la woon nga xam ne toll ci ñu koy gàll ay boggal ba mu ci jamono jooje rek ci ay at ci la yoroon jikko yu kawe yooyu yooyu nag du yéeme ku xam eh, environnement bi nga xam ne ci la ci la feeñe jamono ku xam itam ñi ko daroon ndax bokk na ci ñi nga xam ne dañ ko daroon te defoon ko seen féete mooy soxna assawalo maamam soxna assawaalo ku yitte woowoon mbirum sëriñ moor moom soxna jaara la ku ko taxaw woon la ci fànn yu baree bari itam dugal na loxoom lool ci ak njëlbeenam <clears throat> ak itam waajtaay wi nga xam ne moom lañ ko doon waajal su ko defee kon loolu mooy am njàngam mboolem li nga xam ne itam mooy garaat yi nga xam ne wala jaar-jaar yi nga xam ne nit ku baax ku mel noonu daf cee war a jaar yépp kilifaam yooyu rawatina nijaayam sëriñ bu soobe daf ko cee jaarale tarbiye ko tarbiye biñ xam ci niti tasawuf ba nga xam ne takk na garaati garaati nitu yàlla e, tarxiya ko ba nga xam ne diggan mane na ak boroomam e, sëriñ bu soobe taxawu na ko ci fànn yooyu e, dem ba yitam jiital ko dem ba jiital ko nga xam ne ni mbirum sëriñ bi demee woon ci sëriñ moor anta sëli rek ni la mbirum sëriñ moor moom soxna jaara demee woon ci sëriñ bu soobe kon bu dee wàllu tarbiya ak tarxiya moom ci sëriñ bu soobe li ci ëpp moo ko ci taxaw eh, ci moom yitam la jële woon alwirdul xaadiri wi nga xam ne moom la njëkkoon a yor wax nañ ne jële na ko ci moom jële woon na ko itam ci way juram sëriñ moor anta sali nga xam ne loolu moo doonoon wird wi njaboot gi yoroon ba ci noonu la doxe ba ni njaboot gi demee saalum ba ñu demee salum yitam mu am fa ak ràññiku lool ci yittewoo xam-xam ak yitam yàlla feeñal ak ñawam lool ci fànni xam-xam yépp ba nga xam ne rek loolu ci jural na ko ak ràññiku fa mu nekk ba ñu baree bari sopp ko foofe ñu baree bari aju ci moom nga xam ne eh, kóllëreem ak ku melne alaaji Ablaay Ñas ca Kawlax foofee la woon waaye tamit foofee la ko mbokki yi nga xam ne ñooy waa kër ba Jaxu gise woon ba sopp ko lool te naw aw ay jikkoom lool ba tax na xam ngeen ne ginnaaw bi jox nañ ko sax doomi kiñ daa wax Maamun Ndari muy soxna Maram Ba ba bari na ci ay njabootam yoo xam ne ni eh, moom soxna maram mooy mooy seen wayjur ci la ko sëriñ bu soobe joxe ndigal ne ko war naa ñëw mbàkke mën naa ñëw mbàkke ngir jëmmal kàddu way juróom woowu tombanteeg itam ni ko sëriñ abdul karim indee ci téere bim bindoon ci moom soxna sawalo joxoon ndigal sëriñ bu soobe ba sëriñ bu soobe waxoon ko ne yow daal xëjatoo ci ginnaaw kenn faw dangay ngay sanc te mboolem dong yi nga xam ne ñoom lama yàlla boolel yépp damay boole yépp teg ko ci say loxo taw tawkiil la itam seen seen responsabilité yépp yow laa ko wéer nga xam ne daal ca kanam suñ borom laa lay laaje seeni mbir wax nañ ne loolu moo waral mu jiitu si sëriñ bu ci mbàkke bawal ne kon moom bi muy dellu si jóge moo jiitu si sëriñ bu soobe ab diir ci mbàkke bawal ngir yilla jooju bim fi nekkee bim ñëwee ci lañ wax ne ci la njëkk a sanc fi ñuy wax mbàkki xewar xewar gi mu sancoon nag dafa mel ne luñ ko wan la ci ay gént bërëb bi mu war a sanc bi mu ñëwee mbàkke wax nañ ne wan nañ ko ko ci ay gént ñaari yoon bërëb ne ko béréb bii ci nga war a sanc mu foo fekk booba foofu toolub tokkorum ñambi la woon am na kilifa gu ko moomoon mu waxtaan ci ak moom kookee yombal ko lool mu sanc fa xewar gim sancoon boo demee ci ginnaaw barabu sëriñ muhammadul yaddaali moom sëriñ bi radiallahu anhum eh, xewar gi foofu la nekkoon soxna faati ja moom sëriñ bi radiallahu anha daana ko saytu lool ba ginnaaw xewar googa sax jëmbata jëmba wax nañ ne defaatoon na fa geneen xewar ba mu tàmbalee màgg waaye am ñu ñëw di sàkku ca reen ya ba mu mujj ki fi mu nekk nii boo demee ak ngi gis ak ngi gis moo fa sax fa xewar ga nekkoon foofu la njëkk a sanc bi mu ñëwee mbàkke xew bi mu ñëwee mbàkke nekk ci ndigal loolu nga xam ne moom la moom la ko sëriñ bu soobe joxoon mu nekk ca ci jamono jooju nag mm, la sëriñ Mor Anta Sali wàcc ab liggéey daana dem léeg-léeg Mbàkke Kajoor di nemmi konte ak ay rakkam di nemmi konte ak juram yitam eh, waaye loolu lu lu yoon yu gàtt la daa doon bu demee rek dellu siwaat ci ndigal li nga xam ne ndigalul waajuram la loo xam ne ni moo ko ci nekk loo woon ba bi way juram nelawe fekk moom xam ngeen ne denc baak yépp déggu leen ci aw turam waaye yaakaar naa wax naa yilla ji léegi yilla ji wax naa ko léegi lépp nekk gim nekkoon ci sëriñ bu soobe nga xam ne dafa bàyyi wax nañ dafa bàyyi ab diir door a ñëw jaale si ndax xam na ne sëriñ bi fu mu nekk rek jëmm mang fa moo tax eh, bi mu ñëwee jàll jaale si mu dellu siwaat Mbàkke bi ñu demee ba sëriñ bi woote woote bi am ndigal ci boroomam ngir woote woote bi yónnee na ci moom boobu sëriñ moom soxna jaara mi ngi Mbàkke yónnee na ci moom yëgal ko ndigal li nga xam ne moom la am ci suñu boroom ak woote bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa e, jox ndigal mu woote ko ci anamu jàngaleen ak tarbiya bil himma gi nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati woon bi mu yónnee ci moom nag sëriñ moor fa saasa rek dafa dal di yónni waa ndaw ya wax leen ne bu ngeen demee ne leen ko lu mu nekk rek calaa nekk bu ngeen demee ne leen ko lu mu nekk rekk ca la nekk xam ngeen ne yàggaatul dara sëriñ bi jóge Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol fekk ko fi bim ko fi fekkee sëriñ bi am na ay sanc lum gàtt-gàtt ñetti sanc yoo xam ne ni am na ko ci Mbàkke bawal waaye fu ci ne rekk mook borom saam daanañ fa wéet di diiso ak waxtaan ci li nga xam ne moom lañu seq ñoom ak itam mbir mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote bi mu ñëwee mbàkke bawal xam ngeen ne léegi sëriñ bi mooy kilifaam ci xaqiqa jële woon na alwirdul xaadiri ci wayjuram ak ci nijaayam sëriñ bu soobe waaye bi sëriñ bi ñëwee te nga xam ne léegi mooy kilifaam ci diggam ak boroomam eh, loolu ñuy dégg ñu naan moo ko yeesalal werdul xaadir ci bi sëriñ bi ñëwee mbàkke la woon ci la ko yeesalaatal werdu yi joxaat ko ko jox gu yees moom mi nga xam ne mooy kilifaam sëriñ moor moom soxna jaara nag jamono yi sëriñ bi ñëwee mbàkke daana sonne lool nit ñi mën a dégg sëriñ bi ak xam fi muy woote jëmale fi mooy lan fu sëriñ bi masa nekk fekk na ko fa ci biir sanc yooyu ñu daa wax e, ñu ma wax léegi sanc yooyu ma wax léegi <clears throat> bu fa masaa demit taxawaay ya war ci moom ngir taxawu sëriñ bi ak jàppale ko ak fexe ba nit ñi comprendre ko loolu rekk lu liggéey bu rëy rëy moom la ci daa def mag ñi wax nañ ne am na bis mu sàkku ci waa Mbàkke yépp ñu dajaloo ci jàkk ji e, ngir jullee si fi ci jàkk ji wax nañ ne keroog bi muy sàkku loolu dafa wax ne li ma bëgg li ma bëgg ba tax ma bëgg ñépp daje si fii ci jàkk ji mooy dama bëgg ñépp jàkkaarlook kanamu sëriñ tuuba gi kanamam gii képp ku jàkkaarlook moom danga xam ni kii de aw yiw dong moo nekk ci moom kii de aw yiw dong la ëmbal ñépp kii de tonowu dong la képp ku jublu ay mbiram mën a def daa ko taxawu xam ngeen ne bari na ay nettali yoo xam ne ni rot na ci yoo xam ni Cheikh Ibra Fall da ko daa wax ku dul Sëriñ Tuuba doo borom saam nangam ak ya ca xew xew-xewi Mbàkke yi jàpp naa ne mbokk yi am na yuñ ci xam waaye yépp Sëriñ moo Jaara taxaw na ci taxawaay bu ràññeeku ngir rekk nit ñi comprendre sëriñ bi mu mel loolu itam mëntoon a ndax sëriñ bi ñi nekkoon ak moom xam nañu ko waaye ñi ëpp ci ñi nekkoon mbàkke te ñu ci bari noon nekk ay bokk wala ñenn ñi doon ay doomi soxna te nga xam ne xamuñu woon mbirum sëñ bi miinuñ ko woon bu jekki-jekkee rek ñëw ak ni mu ñëwee xam nañ ne loolu moom faaw mu jur ay jaxasoo lekk léeg waaye nag sëriñ moor mës summi aw dàllam ngir képp koo xam ne kii kuñ wara a la ci mu gën a dégg mbirum sëriñ bi muy def kemtalaay kattanam ba di dimbule nit ñi ngir ñu gën a mën a dégg mbirum sëriñ bi kon loolu rekk moo doonoon taxawaayam ci digganteem ak sëriñam boobu di rakkam jim bokkal ñaari wayjur ñu bokk genn leer goo xam ne gi moom la leen sëriñ moom la leen suñ borom boole loolu moo doonoon taxawaayam ci jamonoy Mbàkke ba xam ngeen ne biñ demee ci mujj gi la sëriñ bi bëgg soppi dëkk bi ndax dem na ba dëkk bi xumb te sëriñ bi loolu méngoowutoon ak environnement bi mu bëgg ba mu demee ba Eh, ni ni mu ñëwee ci ci téerey mag ñi bi mu demee ba dëkk ba xumb mu tuxu dem daaru salaam laataa muy dem daaru salaam nag yónnee na fekk na soxna sowal nelaw na ba mu yónnee ci sëriñ bu mu ñëw bi sëriñ bu soobe ñëwee ci la ko jox kër gi ci mbàkke te xam ngeen mooy fële ca armeeli bu soobe yi sëriñ bi mujj dëkk ci Mbàkke eh, sëriñ bu soobee bim ñëwee sëriñ bi daf ko may kër googa dal di dem Daaru Salaam sëriñ bu soobee fii ñu ko denc mooy jàkk ji nekkoon ci buntu kër gi foofu lañ ko denc fa la barabam bu barkeel ba nekk sëriñ moor moom soxna jaar nag bi sëriñ bi demee Daaru dañu di jokkaloo ak moom di fa dem di ko nemmiku di xam ci ay mbiram lu mu nekk ak itam wéyal liggéey boobu nga xam ne ci la nekkoon euh, mooy fexe ba nit ñi comprendre ko fexe itam ba ñi ko comprendre ba doon ay taalibe xam yoon wi ñuy jaar ba mën a jariñ ci sëriñ bi xam ngeen ne ci diir boobu yépp sëriñ bi moom la daa tawkiil li li ñi tudde mbiri biram mbiri biiram mbiri njabootam moom la ko daa tawkiil ba xam ngeen ni jamonoy daaru salaam yooyu ci la cheikh mahamadul moustapha ak cheikh mahamadul fadil feeñ jamono eh, nettali bi ñuy nettali ci mbirum cheikh mahamadul moustapha am na ci ay mbokk yoo xam ni danañ ko faral di laaj waaye yàlla def na tawfeex ba dégg nañ ci kàddu sëriñ Muudu Xari Buso moom sëriñ Masàmb Faati mu nettali na mbir ma tëdde woon te jële ko ci way juróom sëriñ Masàmb Faati moomu nga xam ne moom la sëriñ bi doon topp tooloo mbirum Cheikh Mamadul Moustapha sëriñ Muudu Xari dafa wax ne bi Cheikh Mamadul Moustapha di feeñ jamono dafa fekk dafa tombanteek sëriñ bi nekkoon ci xalawaat yooyu mu doon def ci tuuba ak di wër pàkk bi ba bis ñu jóge moom mook sëñ ma sàmb faati ñu bokk jóge tuuba ñëw daaru salaam booba fajar mi ngi xar bi ñuy si ñu ndodd ci jàkk ji ñu jubal dugguñ ci kër gi ñu jubal ci jàkk ji sëriñ Moodu Xari nee na sëriñ ma sàmb faati nee na bi ñu jullee ba noppi ñu génn di wutali kër ga ñu ci lañ ko dogale ne ko soxna amintaloo am na gan nee na biñ ko ko waxee sëriñ bi daf ko woo moom sëñ ma sàmb faati moomu ne ko gan googu ñuy wax nang ko taxaw lépp lu ñuy defal kuy doora feeñ jamono rek nanga ko ko defal daal di sëñ ma sàmb faati ne sëriñ bi daal di koy digal ne ko na dem ci sëriñ moor jaara sëriñ moor moom soxna jaara ak sëriñ bu soobee te yëgal leen ko eh, daldi jël aw kayit musàmm faati nee sëriñ moo jël aw kayit bind ci baatu moor daat ko koy jox ne ko buñ demee ba ca bis ba nag man jërul ñuy jiima xam ci man dara bu sëñ bu soobe ñëwee ak sëriñ moor na nga leen jox kayit wii waaye man jërul ñuy xam ci man dara eh, bi ñu demee ba bis ba ba sëriñ bu soobe ñëw mooy kilifa gi sëñ moo jaare ñëw eh, sëñ ma sàmb faati nee na ma wax leen li sëriñ bi wax jox jël këyit wi jox ko sëñ bu soobe bi mu xoolee ñu bind ci baatu moor nee na dañoo sikki sàkka kan la war a jublu ci baatu moor gi ndax sëriñ moor anta sali way juram la ci jublu ndax lu yàlla ndax sëriñ moor buso nijaayam mii ndax sëñ buso ga daan nañ ko wax moor eh, loolu moom la ci war a jublu ndax lu yàlla la wala ndax magam jii di sëriñ moor moom soxna jaar la ci jublu lu ci ne lu yàlla nee na biñ sikk sàkkaa loolu sëriñ buso bi moone nañ ko tudde muhammadul mustafa bam ñëw sëñ mudu xari neena na sëñ Masamba Faati nee na sëriñ bi daana yéem lool ni ni sëñ bu soobe taq diir boobu mu def ak nim jubloo ak bëgg-bëggu sëriñ bi loolu ci waxtaan yim doon def ak suñu kilifa sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Xaadir am na ci nga xam ne ba tey band yaa ngi fi noonu la nettalee ñëw googu waaye jamono yi nga xam ne itam ci la sëriñ bi nekk ci xalawaatam yooyu xam ngeen ne lu luñ mas a jaaxle ci moom rek dañuy dajaloo ñëw ci sëriñ Moor di ko ko laaj eh, ba ci jamono yooyu eh, lu luñ daa xam ci sëriñ bi rek moom moo leen ko daa wax nga xam ne kon eh, am na ci xalwa goo xam ne gi sax bam ca nekkee mbokk yi dañoo mujj jaaxle lool ñëw ci sëñ Moor Jaara ba bi mu demee ba nemmiku sëriñ bi xam ngeen leetar boobee mu ko joxoon nga xam ne daf caay wax ne dafa nekk ci ndigalul suñu boroom rekk ci xalwatu rekk la nekk waaye saa yu amee ndigalul génn dana génn te lépp luy niru ak dogu bokk wala lu ko xeetoo rek du tukki mukk ci moom am ni nam ko tëje woon matta uxraj axruj saa yu ma amee ndigalul génn rek leetar boobu jàpp naan mbokk yu bare bari xam nañ ko ci jamono yooyu la woon nga xam ne bokk yi ñoo daa amul jaaxle ñëw ci sëriñ moor moom soxna jaara di di waxtaan ak moom ci mbirum sëriñ bi mu di ko nemmiku ba ni sëriñ bi jógee daaru salaam dem Touba sëriñ Moor moom soxna jaara dafa wéyal liggéey bi nga xam ne daf ko sasoo woon te mooy fexe ba nit ñi mën a jariñu ci sëriñ bi ñi nga xam ne comprendre uñ ko itam ñu comprendre ko ba sëriñ Xabibu Mbàkke daana nettali ne bokk na ci magi Touba yu njëkk yooye kuñ daa wax sëriñ Balla Mbay wax na ne sëriñ moor moom soxna jaar mas na faa ñëw bis dajale taalibe yépp ñu julli ba noppi mu dajale leen di waxtaan ak ñoom ngir rekk bëgg ñu kon noonu la daa dëggale ne sëriñ moor moom soxna jaar mooy kilifa gi te ñépp ci ginnaawam lañ wara a tënku am na sax leetar boo xam ne bi sëriñ sëriñ maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta borom gaawaan la ko bindoon waaye ba mu demee ba ci biir daf caa wàqanteeg sëriñ Moor Jaara nañ ko yaa ayyuhal kabiru yaa kun li sigaarika maan fa tuxmadu hadaakumullahu siraatal mustaqim wa ankumu nafal laina wassaqim ak ak leer ba leetar ba jeex nga xam ne mm, dafay digal mbooloo mi yépp euh, ñu topp ci moom am na ci bayit woo ko wax ne ko ijma sigaaraka wa faariqul xasad ruumu taxaabuban bi xalbin wa jasad jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuuhu yunfa ankumul wadab روموا إمالة الخلوب للسمت الرافع السماء من غير عمد kon eh, leetar boobu ci njëlbeen ga maam si la doon waxal waaye bu koy tëj eh, Sëriñ Moor la doon waxal ngir bëgg rek ñépp xam ne mooy seen kilifa boo xoolee itam taalibe yi itam noonu rek la leen dénkoon eh, wax nañ ne Cheikh Ibra bi muy bi sëriñ bi dem ci tukki bi daf ko waxoon ne ko li nga daa liggéey bi nga ma daa indil jox naa la ndigal ci nang koy def ñetti xaaj benn bi nang ma koy yëtal sëriñ moor moom soxna jaara te yéeneel ma ci jokk ak bokk bi ci des nga jox ko maam cerno ngir njaboot gi ci moom lañu fare bi ci des nag ku aaji ndimbal rek nga dimbale ko ci xam ngeen ne sëriñ Basiru firndeel na loolu ci minan ba muy wax ne maa ngi fàttaliku sëf yi nga xam ne Cheikh Ibra daana ko yenu di ko yóbbu kër sëriñ Mawar moom soxna jaara noonu la seen mbir demee ba ni sëriñ bi dellu see ci tukki bi bi mu dellu see ci tukki bi nag xam naa ñu baral bi mu dellusee ci tukki bi nag fi ñu njëkk a gise mooy daaru salaam eh, keroog bi nga xamee ne sëriñ bi egsi na daaru salaam sëriñ moor dafa jóge mbàkke ñëw daaru salaam bi mu ñëwee nuyoon teeg borom gaawaan mu am fu mu ko dalal mu ne ko kon danga may yëglul sëriñ bi wax nañ ne boroom gaawaan dafa dem di ne sëriñ bi sa mbokk ma sëriñ moor moom soxna jaara de moo lay nuyu tey yëglu tey laaj ndigalul egsi wax nañ ne bim ko ko waxee sëriñ bi dafa bég mbégte mu kawe njort dal di jóg ne mën naa egsi bi boroom gaawaan di dem di wax sëriñ moor ne ko sëriñ bi nee na mën ngaa egsi ndekete sëriñ bi mi ngi topp ci gannaawam bi mu yégee ne sëriñ bi mi ngi topp ci ginnaawam rek mu ne sëriñ moor sëriñ bi kat nee na mën ngaa egsi waaye daa mel ni mi ngi nii sax sëriñ moor daf ni bërit jóg keroog wax nañ ne ci ëtt ba lañ daje daal di daal roofaloo kenn ku ne musaafaxante kenn ku ne kottu moroomam e, ngir nammanti ko nga xam ne moo dox ci diggante nammante gi nga xam ne moo doxoon ci seen diggante ñoom ñaar ñaar ñu bokk ñaari wayjur eh, ba noppi pas-pas boolewaat leen eh, foofu lañ njëkk a gisee eh, xam ngeen sax ci nganuk daaru salaam googu bi ñu demee ba maam Cheikh am na jaam boo xam ne bii doonte ni jubluwu ci woon lo liñu baaxo ñu dégg sax waaye jubloo ne teraange ji dara desu ci rek sëriñ bi daf ko digal ne ko kooku di mbiram moom diis na ci kudul borom saam nañ ko yët borom saam kooku nga xam ba bàyyi kamara la tudd ay njabootam ñi ngi mbàkke ba fii mu toll nii kon foofu la ñuy jógee ba sëriñ bi jóge fii dem daarul mën naan ba mu demee daarul mën naan nag sëñ moor daawu fa jug daanaka am na sax ci gëstukat yi ñu wax ne toxaloon na wutoon na ab sanc bu bu soriwul dara fii daarul alimul xabir nekk muy ndaam ngir bëgg a jege sëriñ bi rekk xam ngeen ci jamono yooyu rawatina bi coowul mbaaxaan li jóge sëriñ moor dañ na ca lu ne sonn na ca lool sëriñ Mudu Maamun ñang wax na ne rapport yi tubaab yi bind nañ ci sax ne ñi gënoon a jege sëriñ bi ci jamono jooju te mu jaral leen seen bakkan rapport tudd na ci ñaar rapport yoo xam ne ni wax nañ ni bu ci ne rekk tubaab yi sëriñ moor moom soxna jaara moomu lañ jiital aw turam ca kaw dégg sëñ Moussa bi muy nettali ba maam si Anta àndeek maam Cerno di wuy te ñu ànd ak borom saam alaaji Seex Anta ne ko kii lay borom saam mooy magi Seex Bàmba te mën naa wuuta mu sonnoon na ca lool lool sax ci jamonoy daarul mën naan jooju waaye xam ngeen ni mbirum sëriñ bi e, suñu boroom moo ko moo amee yi ciy feeñ yépp ay sabab la rek yoo xam ne nii lam ci jublu xam na ko moo tax pexe ya niru lu sotti ba ni ko ni ko yóbboo gànnaar bi muy dem gànnaar nag jaar na ci sëriñ Moor Jaara fekk ko Mbàkke ñu def waxtaan wu am solo woo xam ne wii ku ko dégg danga xam luy mbirum sëriñ Moor Jaara lu ci bari danga ko xam keroog bi ñu toogee di waxtaan sëriñ Moor daf ko wax ne ko muñug doomu aadama de ci man la yem ndax mbooleem sa tukki bi lépp luñ lay tudd wala lépp loo moom ak lum man di doon rek muñ naa ko yootuwuma ci dara soxlawuma ci dara muñ naa lépp ngir rekk yaatal bokk yi ak taalibe yi dal ne ko te moo ne day mbir mi dey man la rekk yow la rekk soxna si rekk loolu la ko siñ mu soxna jaara wax sëriñ bi ne ko siñ moor de loolu am na solo waaye li ko ëpp solo mooy li fi dajale nit ñi te loolu séquma ko ak kudul yow lu ci nekkul ci man ci yaw la nekk lu ci nekkul ci yow ci man la nekk li ci des nag muy coow leeg riir meek yi ci aju yépp loo ci soxla woon wala ma soxla ko ñi ñi nga xam ne ñoo ko yor duñu ci jot te loolu mooy te loolu mooy li ëpp solo waxtaan woowu jàpp naa ne mën naa firi lu baree bare ci mbirum mbirum Sëriñ Moo Jaara bi sëriñ bi demee gànnaar xam ngeen ne li gën a rëy ci mbirum sëriñ bi ci gànnaar mooy alwirdul maaquus foofee la ko ko suñu boroom joxe ci diggaleb yonent bi sallallahu alayhi wa bim ko ko joxe wax nañ ne kim ko njëkk yónnee fii ci réew mi mooy sëriñ moor moom soxna jaara la ko njëkk yónnee loolu sëriñ abibu mbàkke imaam daana ko nettali sëriñ bàyyi sëriñ bu sa ilimaan moom sax mel na ne leetar ba àndoon ak ndigal la daana wax ne amoon na ko doon nañ ko gëstu nag waaye taxagul ñu gis ko ba tey waaye daa daana wax loolu nga xam ne sëriñ moor la ku njëkk yónnee fii mboolem ku ku ku yoroon wérdi wi fii itam moom la sëriñ bi digaloon ne na koy joxe kum xool ba xam ne mën naa yor werd wi nag ko jox ndigal loolu la sëriñ bi joxe woon fii jamono yooyu itam sëriñ moor xam na ne sëriñ bi mooy kilifaam ba lépp lu muy def rekk da ko ciy laaji ndigal boo demee ci marsi yëpp sëriñ daam abdurahman loo bi ko sëriñ Moussa ka defal danga fa gis ndigal lu sëriñ moor doon laaji sëriñ bi jamono yim nekkee gànnaar ngir am koo xam ne kii daa am kum ko bëggoon a jox sëriñ Moussa indi na ne sëriñ Moor Ndaw lim yabaloon ngir laaji ndigal Omar la tudd te moo ne booba fekk na sëriñ bi yabal ku tudd Omar ku tudd Omar mu jóge ca sëriñ ba jëm si ci sëriñ Moor moom soxna jaara doon ko indil ndigalul na jox diw diw nga xam ne kii sëñ moor di yónnee ca sëriñ ba di ko laaji ndigal sëriñ bi yabal na ndaw di di jox ko ndigal ne boo demee ne sëñ moor na jox diw diw nga xam ne loolu lu yéeme la te ci jamono jooju la amoon ba ni nga xam ne nag ni la mbirum gànnaar ma jeexe sëriñ bi ñëw ceyeen jolof bi sëriñ bi ñëwee ci yéen jolof sëriñ moor lim njëkk a def lim njëkk def bi mu yégee ñëw sëriñ bi mooy alwirdul maaxuus wa nga xam ne sëriñ bi daf ko ko yónnee woon dafa demoon jëliwaat ko ci sëriñ bi musaafahatan xam ngeen lool li muy tekk ci wér bi ci niti sufiyanke yi musaafahatan la dem jëliwaat ko ci sëriñ moo sëriñ sëriñ bi dafa daal dem ci moom ngir jëlaat wérdi wi tuñ ak tuñ ni nga xamee ne loolu dafa am dafa nekk lu am solo ci ci wérd daana fa dem ay yoon yu baree bari tubaab yi bind nañ ay yoon yu ay dat yum fa ñëw yu baree bari wax nañ ne ki ëpp ay addiya yum daa indi ci ceen jolof mooy sëriñ moor moom soxna jaar loolu mi ngi ci mbindi mbindi tubaab bi seen rapport yi sëriñ bi foofee ca foofee ca ceyeen jolof am na fa ay ay xew-xew wala ay nettali yoo xam ne ni am na digganteem ak sëriñ moor moom soxna jaara bokk na ci nettali yooyu nettali bi nga xam ne sëriñ basiru moo ko nettali sëriñ abdul latif ne ko am na bis sëriñ moor moom soxna jaare ñëw ci jolof ba mu yàgg rek mu fàddu dugg ci àll bi xamuñ fu mu nekk bi ko sëriñ bi laajee ñu am kumpa ci moom mu tànn fukki nit ak ñaar sëriñ Abdul Latif nee na sëriñ Basiru bindoon na fukki nit ñooñu ak ñaar seeni tur bindoon na ko jox ko ko waaye dafa mel ne ak lakk da lakk kayit woowa fukki nit ñooñu ak ñaar sëriñ bi daf leen a waxoon ne leen na ngeen ko wëri ba fu nekk na ngeen ko fa fekk bu ngeen demee lam nekk na ngeen ko xool te ñëw wax ma ko nee na ñu di ko wër ba fekk ko mu toog ci ak garab ca wetu dàgg ja keroog ñi ngi ko fekk muy jàng alxuraan toll ci sóoratu yunus fi suñ boroom di waxe xat ujibat dawatukuma fastaqima ci aaya jooju lañ ko fekk nee na bi mbooloo mi ñëwee sëriñ moor dafa teg baaraamam ci aaya jooju te xam ngeen ne aaya jooju mi ngi wax ci diggante yonent yàlla Muusa ak yonent yàlla Haarun ni seen mbir demee ak ni nga xamee ne ni lañ bokke mission xam ngeen ne moor jaara sëriñ bi moo ko waxoon ne ko maag yow ñëw seq mission bi euh, xam ne xëy na du ñàkk bu ko waxtu mayee sax danañ ci egsi ca bu ñu ñëwee ci xew-xewi njaareem yi incha allah nee na bi bi bi mbooloo mi ñëwee sëriñ moor dafa teg loxoom ci aaya jooju ne leen aaye jii day ba ma ko suñ boroom di sax di ma ko xamal booba ci war fasu fasu bant ci laa toll ci ay at am ne boobu mëtaguta sax dal jàng nee na mag ñi yéem lool lool ñëw ci sëriñ bi wax ko ko mu ne leen lool rek la bëggoon ngeen xam ko te dégg ko ci moom moo tax ma santoon leen ngeen ngeen ngeen wari ko moom sëriñ moor moom soxna jaara nag bari na sax ñuy juum di tudd ak ñëwam ci sëriñ bi ci jamonoy céyeen jooju te fekk ne ay njabootam rawatina Serigne Mor Soxna ab taawam moo ci jamono jooju bi moo laajoon ndigal du moom dong sax suñ Cheikh Sawalo di doomam ay njabootam yu mag yépp ci jamono jooju lañ ñëw ci sëriñ bi sëriñ Mor Soxna nag ñëw na fa ñëwin woo xam ne wii wu ràññeeku la sëriñ bi amoon na tarbiya ràññeeku gum ko daa def gum ko doon defal foofee ca ca kii ak ba ba mu fay jóge di ñëwaat ci kaw kër sëriñ moor moom soxna jaare ci ndigalu sëriñ bi nam ñëwee ak la mu àndal ci mbooloo ndax e, pas-pas bi mu ñëwee woon ci sëriñ bi xëy na bu waxtu mayee bu jamono eggee ci waxtaani sëriñ moo soxna loolu ñu ko war a leeral danañ ko leeral nga xam ne am na yitte ju ko yëkkati woon bi muy ñëw ci sëriñ bi ak bi ñëwee am na lum ko wax loolu moo waral sëriñ bi amoon num ko ràññee ci tarbiya gëm ko doon tarbiya ba na muy delloo ci way juram ak mbokk ñu baree bari nag danañ jaawale sëriñ moor soxna moom ak sëriñ moor moom soxna jaara mi waaye ku dégg ni ñu waxe ci ginnaaw da nga xam ne eh, ñaare ñàkk xam rek mooy waral léeg-léeg nit di waxe nen ni waaye ku xam moom da nga xam ne sëriñ bi mës sa tàggalikoo ak sëriñ moorum soxna jaare ci benn benn saa Eh, ci jaar-jaaram yépp kon noonu la sëriñ bi nekke woon ak moom ci mbirum Ceyeen Jolof moomu sëriñ Moor daana fa dem lu baree bari di yóbbu ay ay hadaaya yu baree bari ba ñu ràññee ko lool ba ni sëriñ bi jóge foofa nag ñëw njaareem ci loo xam ne nii tëraliinu suñu boroom la mu ñëw njaareem eh, xam ngeen ni yilla ja taxoon ñu indi ko njaareem ak la ko fekk ku ne xam na ne wuute nañ dañoo wax ne foofu moom sëriñ moor dafa jege woon ci moom ba dafa daa baagante dafa daa baagante ba sëriñ bi ne nañ ko fi wutal kër xam ne eh, sëriñ moor amoon na kër njaareem bu masaa ñëw ci këram googu ba yëglu ca kër gu mag ga sëriñ bi daf ko fa wutaloon wàccukaay woo xam ni wi fa lay wàcc am ne sëriñ bi bëggutoon sëriñ moor ñëw di yëglu di ko fekk fenn waaye da ko wutaloon wàccukaay woo xam ne wi fa lay nekk saa yu ñëwee fa lay nekk yëglu su yëgloo sëriñ bi mooy jug fekk ko foofa sëriñ bi jàngale na ay teggin ci anam gune nga xam ne bu masaa ñëw ci biir kër gi fam sëriñ bi daf koy dalal moom dal di jug fekk ko foofa foofu ci njaareem nag yu baree bari ci ay nettali xew na fa ci diggante sëriñ Moor ak sëriñ bi na ci nettali yooyu yi nga xam ne sëriñ Omar gelongal moo ko nettali jamono yooyu fa sëriñ bi ñëwe sëriñ moor ñëwe te tombe woon taw boobu mu doon taw ba xew-xew ye jàll ba sëriñ moor doon ko wax lam ko doon wax ca taw ba ak itam bañ xëyee nañ fekke sëriñ ba mu doon liggéeyal boppam ak itam eh, lam lal laltaay jëm ko lalaloon nga xam ne ñoom ñaar ñépp dañ ko fa mujj bàyyi ak eh, lam ko waxoon ne ko eh, ñaari ndaw lañ rekk yu ñu yónni yoo xam ne nii loolu dañoo wax ne sëriñ moor moom soxna jaara dafa mas a ñëw bis ci njaareem fekk mag ñi yor xasida gu yees xasida gi nag mbokk yu wuute nañ ci waaye ñi ëpp minan nu baaxil xadiim lañ wax waaye am na nag ci gëstukat yi ñu wax leneen waaye xasida gu yees daal la fekk mag ñi yor ko sëriñ moor xool baydu njëkk wa tari ko loolu yéem mag ñi lool ba ñu demee ci sëriñ bi di la di ko wax ngir yéemu ci jëf jooju nga xam ne moom la jëf ci la leen waxoon ne leen mbaadu kooku sama digganteek moom foofu ngeen ci toll moom ni ma leen ko mën a misaale mooy ñaari ndaw yoo xam ne nii seen baay da leen a woo ne leen dem leen ci seen baay diw ne ko nangam ak nangam ak nangam ne leen buñ demee nu ñuy def ñu ne kenn ka rek mooy wax kenn ka noppi mu ne leen noonu laa demee ak sëriñ moor la fa moom de ump ma waaye manit li fi man di ump ko loolu ci njaareem la xewe woon ci njaareem googu la ko waxoon ne mag ñi ne leen sëriñ moor de sama diggante ak moom dafa mel ne kër gu am ñaari néeg néeg daje ak néeg pekk néeg daje ak néeg pekk néeg daje bi mooy sëriñ bi néeg pekk bi nga xam ne ci lañuy denc secret yi nag mooy sëriñ moor moom soxna jaara te xam ngeen ne loolu Cheikh Mamadul Fadil wax na ko ci baat yu gëna a leer wax ne njabootu boroom saam di bu ngeen gisee bëgguma di leen dégg ci yenn yi mooy yoonu murid wii làmp bi nga xam ne moo moo yor leeram gi nga xam ne ku ko gis xemmem ko dinaamo bi bi taal làmp boobee mi ngi ci biir néeg sëriñ Moor Jaara moo tax bëgguma di leen dégg ci Cheikh Mamadou Fadal wax na lu mel noonu Cheikh Mamadou Moustapha mas naa ñëw Mbàkke wax ne kër sëriñ Moor Jaara nañ fexe ba du ràpp ndax su ràppee àdduna sépp ràpp su defaroo nag àdduna sépp defaroo yooyu yépp dugg ci secret yooyu nga xam ne moom la moom la moom la sëriñ bi wax ci ci ci njaareem googu itam la ko sëriñ bi wane woon yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sëriñ bi dafa daf ko waxoon ne ko yonent bi daf laa sàkkoo gis waaw nga xam ne wax nañ ne dafa am bis sëriñ moor ñëw wax nañ ne dafa am bis sëriñ moor ñëw fa Eh, sëriñ bi jox ko ndigal ne ko am na ku nekk ci néeg bee demoon nuyoonte ak moom ba mu duggee ca néeg ba nuyoonte ak moom ba génn mu ne ko kooku day sa turandoo waa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa la eh, wax nañ ne sëriñ moor moom soxna jaara keroog daf ne a ah, sëriñ bi lool day moom bu fekkoon ne mën na maa wax ne lu jomb la damay wax ne lu ma xaw a jomb la wax nañ ne keroog sëriñ bi daf ko wax ne ko yow day xam naa danga dese eh, dangaa desee xam rek sa sa sa wàccuwaay ci moom waaye nee na day mbooleem ñiñ ko tuddi yëpp yaa ko ci gënal ñiñ ko tuddi ñëpp yaa ko ci gënal eh, kon foo loolu lépp foofu ci njaareem la xew woon eh, sëriñ moor daawut jug njaareem ak xew-xew bari xew na fa yaakaar naa liñ ci jot tënk ni doy na sëkk bokk na ci xew-xew yooyu bi nga xamee ne doomam soxna màggat moo ko fekke woon nee na sëriñ bi xëy di waxtaan ci sëñ Moor Jaara waxtaan gudd ba soxna aw bu sa doon ko wax ne ko waaw xanaa da yàlla muy yonent bi nee na bi ne ko xawma may yàlla xawma mooy yonent bi de waaye bu ëllëgee balaa kenn jariñu daa jaar ci moom waaw loolu loolu ci njaareem googu la xewe woon nga xam ne loolu euh, njaareem la woon te loolu itam lu lu yomb dégg la ndax sëriñ moor moom soxna jaara mii de mas naa wax wax ju niru loolu ndax am na aw turandoo bu ñuy wax sëriñ saam ñang sëriñ saam ñaŋ moomu baayam ci jëwriñi boroom saam yi la bokkoon mu ngi tuddoon sëñ biraan ñang bu yàggul la faatu moom sëriñ saam moomu wax na ne am na bis mu ànd ak way juróom sëñ biraan moomu ci tool yi sëriñ moor yi nekkoon ci sowu mbàkke ñuy dox ba tolloog genn garab gu mag eh, way juróom sëñ biraan ne ko saam di garab gi sa turandoo rekk la may fàttali ne ko dafa am bis dey eh, ñu ànd ci naaj wu tàng jër ba tolloog garab gi ma yërëm ko lool ci naaj wi ne ko sëriñ bi tee nga jàdd ci garab gi dallu aslëf nee na mu ne mu amul solo nañ dem rekk neena bañ dem ba dëpp ba dellu mbàkke ba ca suba ga sëriñ moor moom soxna jaar daldi woo sëñ biraan moomu ba mu ñëw mu ne ko biraande xanaa démb la nga doon wax ca garab googee yërëmoon ma ci naaju tàng wi rek moo ko waraloon mu ne ko waaw lool rek laa ci jublu woon de mu ne ko xanaa xamoo ne man li ma bëgg ku ko bëgg doo tala noppalu sëñ Moor Jaaral wax ko lool ne ko man li ma bëgg ku ko bëgg doo tala man li ma bëgg mooy bu ëllëgee ma ràmm ñépp ba Ahmadu sama rakk jii du sonn lool nag ku ko bëgg doo noppalu nga xam ne moom boo xoolee ñaari wax yooyu day day lëkkaloo lool nga xam ne si ñoo jaar doonoon yitteem lépp mooy bu ëllëgee mu wuutu sëriñ bi ci ràmmal ko ràmmal ko mboolem ñi aju ci moom nga xam ne loolu moo taxoon tëluta noppalu yooyu yépp ci eh, waxi sëriñ boobu ci waxi sëriñ bi ci jamonoy njaareem jooju la woon wax nañ ne sëriñ moor bi mujjee njaareem dafa dem sëriñ bi teeku lu yàgg ba waa mbàkke amuk jaaxle yónni ay mag ñu bari ñu ñëw di nemmiku si waaw sëriñ moor moom nim fi yàggee ci yoonam bi ana lu xew sëriñ bi tee ko rek sëriñ bi tee ko rek ba mu demee nag ba yëf ya mel na ne tée ba yàgg na sëriñ bi door ko yewi wax nañ ne ba mu ko yewee ba muy dem la wax ne li waraloon ma téye ko day moom suñu boroom daf ma xamal ne ci ñëwam gi lañuy mujje gise moo waraloon ma ma ko téye bu yàgg boobu te noonu nii la deme ba fa sëriñ moor jóge ñëw mbàkke xam ngeen bi mu nekkee mbàkke saxaloon na ni nim amee woon dépensu këram noonu la amee woon dépense bu ñuy taal ci biir këram ngir waa dëkk bi dépense dëkk bi sëriñ moo Jaara daanaka mbàkke ak sanc bu masaam rek day am loo xam ne nii njëlul dëkk bi lay tudd fu mu masa nekk rek loolu dafay am nga xam ne mag ñi da leen daa tarbiyaa ci façon googu nga xam ne bu guddee ñépp ñëw reer si ci këram li ëpp ci guddi ajjuma yi ak guddi altene yi da fonk reer bi lool nga xam ne buñ ñëwee eh, bu ñu jëfandikoo ba noppi day daldi di ñoom nag kenn ku ne mu jox la la yell ci yow ñi julli ñi ay dog ñi alquranul karim ñi ay zikar eh, noonu bimu dellusee dellu lool rekk la wéyal wax nañ ne bi tàmbulee lu niru tawat di feeñ ci moom euh, teewul mu daawey ci naafilaam yooyu nga xam ne téeméeri rakkaa la woon guddi gu jot ni ko sëriñ siiru saxale ci minanu baaxil xadiim euh, bi mu demee ba xaw a tële sax dafa takklu ay buum ci gayet gi dafa takklu ay buum ci gayet gi nga xam ne ci buum yi lay jàppandiku ngir di julli téeméeri rakka yooyu guddi gu jot téeméeri rakka yooyu itam am na secret bu ci waxoon ndax dafa wax ne li tax mu saxal ko te di ko def mooy sant yàlla ci feeñal gi mu feeñal sëriñ tuuba ci seen biir loolu loolu bokk na ci li ñu nettali ne wax na ko jublu woon ci téeméer rakka yooyu nga xam ne daf ko saxaloon bu weesoo waajtaay wum jële woon ci soxna sa jubluwaay boobu la ci amoon sant sant suñu boroom ci feeñal gi mu feeñal Serigne Touba ci seen biir kon noonu la demee nga xam ne bi mu tàmbulee yëg eh, ak xaw a wéradi ci jëmmam eh, dafa takkalu ay buum di ci jàppandu ci gayet gi di ci jàppandu eh, ngir ngir ngir mën a wéyal loolu wax nañ ne dem nañ bi tawat ji xaw a gën xaw a gën a metti lëf mu wut ay xob ay xob yoo xam ne nii daf ko takk wërale ko jëmmam doora sol ay yéreem euh, ngir rek dara bañ a dox digganteem ak taxawaay boobu yi nga xam ne moom la danta ba guddi gi mujj fanaan ci kaw suuf woona mag ñépp bañ daje fa mu berndeel leen ci ay ñam yu ràññeeku e, daal di leen jox biñ noppee ay ay dog yoo xam ne ni dana dundal seeni ruux nim dundale seen yaram daal di wéy ci téeméeri rakkaam yooyu wax nañ ne keroog yàlla dafa def feex ba téeméeri rakkaa yi dafa noppi te fajar jotut mu daal di woo mag ñépp ñu dajaloo si ci moom ne leen guddi gii de neenut guddi gii de guddi gu barkeel la te neenut dama bëgg ñu tëje ko nag ci waxtaan ci jaar-jaari mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon tàmbali di leen waxtaanal ci mag ñu baax ñépp ci yonent yi fi jaaroon ci saalixiin yi fi jaaroon noonu la jeexale guddi ga ba fajar say xar mu wax mag ñi ñu xaar ko mu dem waaj te ñëw ñu julli fajar ba mu demee fa mu toogoon di jàpp ngir ñëw jiite mag ñi fajar foofee la suñ dogalub suñ borom wàcc ci moom wax nañ ne keroog mag ñi dañoo ko xaar lu yàgg ñëwut ba ñu yebal ay mag mel ne sëriñ Madun seli Njaay am na ñu tudd mbayka ñu yebal ay mag ñu dugg di ko nemmiku bi ñu ñëwee taxaw ne ko sëriñ bi day yow rekk la mag ñi di xaar te mi ngi bëgg a naaj tontuwu leen nekk fam nekk rek boobu mi ngi toog muuroo kaalaam googu gis ngeen photo yi kaalaam googu nga xam ne moom moom moo nekk moo ci nekk muuloo kaalaam googi bi ñu ñëwee laal ko nag ñu xam ne ci ab dogala wàcc ci moom wax nañ ne ci la ci la e, mag ñooñu ñëw génn ci mag ci mbokk yi wax ne leen bi kan nee na Eh, ngeen julli ku ñuy wax sëñ amadi jatara keroog moo jiite mag ñi fajar ñu julli ba noppi fekk wax nañ ne soxna aswaalo ci ña njëkkoon la eh, ñu waxtaan ak moom dëfal ko wax ko ne ko sutura si ko yàlla sàng daal na ëpp na ëpp na xawi ba mu dal di dal moom itam nee nañ ci la àdduna bépp yeewoo ak naqaru sëriñ moor jaare génn na jamono ci ay gët bi ñu ko tàggee sëriñ bi ci la sëriñ bi waxee waxam ju jooju nga xam ne léeg-léeg sax nga dégg ñu di ko nettali waaye munaasaba bi moom mooy biñ ko tàggee sëriñ moor moom soxna jaara mooy waxam jooju mu doon wax ne lawla alquraan walxadiisu wa masaalixu lmuminin ma bittu fi dunya laylatan waaxida bulu toon alquraan ak xadiisu bi nga xam ne ci samay ndono la bokk ak mbirum jullit ñi nga xam ne suñ borom daf ko tawkiil lim ci tawkiil dootuma fanaan ci àdduna genn guddi loolu la wax keroog te xam ngeen ne sëriñ bi de lu ko jaral wax loolu lu rëy rëy la daldi yable mag ñi ñu jël bagaas yi nga xam ne bëgg ñëw taxawul si ko boppam ca Mbàkke yabal mag ñi ñu jël bagaas yi ba wax nañ ne ñim yónni woon ñëw nañ ba egsi ngaabu jiitu si ko ba yóbbu si ngir yóbbu si bagaas yi sëriñ bi bëgg ñëw wax nañ ni génn na sax bay tolloog fee tolloog raay ba ginnaaw bi mu mu yëg ni amul ndigalul ñëw ci la yónnee ca sëriñ Mbàkke Buso e, dal di dal di koy digal ne ko na dem taxawu sëriñ Moor moom soxna jaara moomu ndigal loolu itam daf cee boole woon seere su rëy seere su rëy mooy dafa waxoon sëñ Mbàkke ne ko bu nit ñi teewee nañ ko yóbbu ca sëriñ bu soobe ndax sëriñ bu soobe day ming ma doon laaj wetal bu yàgg ba tey te sëriñ moor de doy na wéttal ku ne nañ ko yóbbu ca moom te bu ñu demee nañu wut njur sànni ko ñetti yoon fa mu dal nañ ko def foofee te nañu xam ne diggante sëriñ moor jaare ak sëriñ mbusoobe malaaka yi laaj ci bàmmeel ko malaaka yi laaj ci bàmmeel xamuñu ko dal di koy wax ne ko euh, bu nit ñi teewee de na nga seede ne ba ñu jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ca madina ba jantub tey bii tiimaatuñ fi jëmm ju gën a tedd sëriñ moorum soxna jaara mi loolu nag moom wax ju rëy rëy la joo xam ne ji sëriñ bi moo jox ndigal sëriñ Mbàkke so ne na ko seede wax nañ ne keroog bi ñu indee sëriñ moor ba di ko waaja a taxaw sëriñ Mbàkke dafa boot loxo yi di bàgg di bàggante di dem ak ñëw naan cey cey daldi wax seede soosu ne keroog ba ñu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi madina ba day ba suñu jant bi tiimaatuñ fi jëmm ju gën a tedd ji nga xool nag liñ fi tiimaat ci ay jëmm ginnaaw yonent bi ba noonu mu nelawe ci ci talsasin di 1921 nga xool ñiñ fi tiimaan ñum doon pour nga xam dëgg-dëggi seede bi ni mu rëyee ak itam lim ko seedeeloon mook woy juram wa sëriñ Mbàkke Ibra ne ñoom ñaar de xam naa ne dund nañ ci kaw suuf ba jóge fi te yóbbuwuñ ci bàmmeel ak seen digganteeg seen borom bàkkaar yóbbuwuñ fa bor yi itam yóbbuwuñ fa bàkkaar yóbbuwuñ fa bor kon kooku mooy sëriñ moor moom soxna jaara ci digganteem ak sëriñ tuuba mii moom nag e, xëy na dañoo bëggoon a tudd diggam ak sëriñ bi fi ñu jaar ci jaar-jaari sëriñ bi fu ci ne ñu jubloo leeral la doonoon taxawaayu sëriñ moor moom soxna jaara ba tax ñu indee ko nii ngir bëgg rekk njariñ li gën a yaatu waaye booy xool eh, day mel ne fu ci ne mën nañ fa détaillé lu lu baree bari eh, kon xëy na mënees naa wax ne bim fi jógee sëriñ bi ci boppam moo waxoon ne na ko ñépp marsiyaal képp ku képp koo xam ni kii daal man nga man ngaa marsiya na ko nanga ko marsiyaal loolu ndigalu sëriñ bi la woon loo xam ne nii sëriñ Abdul Xudoos moom maam Cerno radiallahu anhuma moo waxoon ne sëriñ bi moo joxe woon ndigal loolu ba nga xam ne ñi ëpp ci mag ñi bind nañ ci moom di ko di ko marsiyaal marsiya yu neex a neex yoo xam ne nii macha allah moom nag eh, xëy na dañoo bëggoon a tudd diggam ak sëriñ bi fi ñu jaar ci jaar-jaari sëriñ bi fu ci ne ñu jubloo leeral la doonoon taxawaayu sëriñ moor moom soxna jaara ba tax ñu indee ko nii ngir bëgg rekk njariñ li gëna yaatu waaye booy xool day mel ni fu ci ne mën nañ fa détaillé lu lu baree bari euh, kon xëy na mënees naa wax ne bim fi jógee sëriñ bi ci boppam moo waxoon ne na ko ñépp marsiyaal képp ku képp koo xam ni kii daal man nga man ngaa marsiya na nga ko na loolu ndigalu sëriñ bi la woon loo xam ne nii sëriñ Abdul Xudoos moom maam Cerno radiallahu anhuma moo waxoon ne sëriñ bi moo joxe woon ndigal loolu ba nga xam ne ñi ëpp ci mag ñi bind nañ ci moom di ko di ko martial martial yu neex a neex yoo xam ne nii macha allah waaye xam naa danañu barkeelu ci lenn ci maraasi yooyu ngir rek eh, mbokk yi gën a gën a eh, mën a xam sëriñ moor mii lan la mag ñi wax ci moom lan la mag ñi doon dundal wax ci moom bu weesoo yu bari yu baree bari yoo xam ne ni sëriñ bi ci boppam moo ko wax ci moom ak itam yi nga xam ne njabootuk sëriñ bi ci boppam wax nañ ko ci moom yu baree bari xëy na bu ko waxtu yu mate woon danañ ci indi yu baree bari yoo xam ne nii sëriñ bi ak njabootam gi ak mag ñi ñoo wax ci moom waaye bu weesoo loolu mën nañ ci tënk jataay boo xam ne bii e, suñu maam maam Cerno maam Cerno Ibrahim moo ko moo ko moo woon bis ziyaare si ko ànd ak sëriñ daam ture ak sëriñ ma yaasin ummi ñëw ziyaar si sëriñ moor moom soxna jaara ca mbàkke bi ñu ñëwee sëriñ moor moom soxna jaara jox leen warga maam cerno ne warga wi daal bala ñu ko naan na kenn ku ne bind ci sëriñ bi ñetti bayit wax ko sëriñ daam ture ak sëñ ma yaasin ummi jang ne warga wi bala ñu ko naan na kenn ku ne bind ci sëriñ bi ñetti bayit waa xam naa bayit yooyu dañ koy gaaral doora def ab barkeelu bu gàtt ci e, marasi yi nga xam ne yu baree bari la yoo xam yenn yi mbokk yee ko bind yenn yi taalibe yee ko bind yenn yi naar yi ñoo ko bind ci sëriñ moor moom soxna jaara incha allah ñu indi leen bayit yooyu ak ñetti bayit yi nga xam ne bi ko sëriñ bi déggee moom la ca teg wax nañ ne sëriñ daam ture moo njëkk a jël wax ne matxan li sayxin faqihin faiqin alamin yulin nada walhuda walxayri manihami maniami waa ne maa ngi tagg ab sëriñ bu dégg feq bu kawe nekk alam boo xam ne bii ak tabam day jooxe ak tab euh, day jooxe ak aw ak day gindee itam te ku bari ay yiw la ku bari ay xewal la daal ne zaakal mbakiyu allazi ma zaala muxtafiyan nahjal mutiici naajal mutii safiyi rusli wal umami waaw naa ne kooku mooy mbàkki-mbàkki bi nga xam ne mësta dañ ci di xeeñtu uh, yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa bahrun yamuuju lana nawaaluhu zaatu faydin jammin kalxiyami nee na moom kat géej la goo xam ne gi waameem yi feesaloon na suñu ndab yi dell maanaam ay mayam moom ak bëbb la woon te itam mm, li nekkoon ci moom ci ay valeur ak jikko yu rafet itam noonu la tolloon wax nañ ne sëñ ma yaasin ummi daal di jël ne akrim bihi sayidan xat xaasa min sorofin ma yujizul fikr an xamrin wa an kalimi nee tedd tudd naa tedd ngay sang bi nga xam ne limu tedd ci limu mu làq ci ak càng kenn mënu koo xalaat ba di ko bind ci ay kayit wala nga di ko wax ci làmmiñ ne in jitahu taaliban jazlal ataa'i tajid kaffayhi kalwabli fi shakbin wa fi karami nee soo ñëwee ci sëriñ moor moom soxna jaara ngir ne danga aajo ak may danga fay fekk waame wuy sotteeku danga fa fekk tab boo xam ne bii du desal dara daal di wax ne man xaw fu rabbin xaalixin samadin muxyil layaali tabibil jahli wa soqami nee na sang bi may wax muy sëriñ moor moom soxna jaara day foo ko mas fekk moom lim taqool mooy ragal yàlla mi nga xam ne mooy bind mbindeef yi tey ñëpp aajowoo jëm ci moom fook fekk rek mi ngi daal dundal guddi yi moom doktooru réer la woon doktooru ràgg la woon nee ñetti bayit yooyu la sëriñ Mayaasin ummi wax maam cerno daldi jël maam cerno ne nadbun sahirun nada baadin fadailuhu jammun atayaahu bal asxa min addiyami nee na ab taba ngi boo xam ne bii ak tabam ñépp ko xam ak tab gu siiw la tab bu siiw la bu ñépp xam ab tabam te ay ngëneelam nag dafa fés ba ñépp teg ci bët ku bari ay may la ku gën a tabe fuuf tabu tawu waame dal di wax ne tallaahi lawlaahu kunna fi safa jurufin haarin walam yanfalit tamsun anil alami <clears throat> nee na giñ naa ci yàlla ne bu du toon ak sëñ Mor Jaara ñi ngi woon ci pind bu xam ne bi kàmb goo xam ne gi ñun ñépp ñoo naroon ak gawiku euh, daanu ci biir kàmb googu te bu du toon sëñ Mor Jaara kenn du ci mucc daldi wax ne alhamdulillahi fi wifqi zamani bihi wa kaana su'daduhu fi l arbi wal ajami maa ngi sant yàlla ci daje gi ma daje jamono ak sëriñ moor moom soxna jaara mii nga xam ne nekkul woon sangub ñu ñuul ñi rek waaye moo doonoon sangub ñu ñuul ñi moo doonoon sangub arab yi wax nañ ne bi sëriñ bi déggee seen bayit yooyu la ci teg moom itam ñetti bayit ci baxru biñ ko waye itam la la la la la jëfandikoo daa daa wax moom sëriñ bi radiallahu anhu wa nafaana bihi daldi wax ne jazakum bi jazail xayri zu qidami wa qaadakum li muraadil barri zil qidami waa leen yàlla fay yàlla mi nga xam ne moo moo jiitu ñépp mooy boroom jiitu gi yàlla na leen wommatal boppam ba ngeen daje aku moom mi nga xam ne mooy borom jiitu gi yàlla na leen wommat ba ngeen daje aw yiw aku yiw wa minhu atlubu ni daarayni fawzakumu bi xibtatin yowma julli naasi fi nadami maa ngi sàkku ci yàlla ngeen tuufoo ci ñaari kër yépp ngeen tuufoo am li ngeen bëgg ci ñaari kër yépp ba bu ëllëgee lam leen di faye doon lum leen lu leen ñépp di ñee ñee ci bis ba nga xam ne ñi ëpp ci nit ñi dañuy dañuy ci agréccu lañu nekk dal koy tëje ne tiibu nufuusan bi haza wafraxu jazalan yajzikumu xayra man yajzi sawil xidami ne na seen xel dal na seen bakkan te na ngeen bég ci jëf ju réy ji ngeen xam ne moom ngeen jëf na ngeen bég lool te xam ne yàlla mi nga xam ne mooy fay képp ku liggéeyal nit ku baax dana leen fayal boppam xam ngeen ne sëriñ bi xam ngeen ne sëriñ bi moo daa wax ne boroom saam de ku ko randalal bant sama jëmm nga ci wuutu ndax lu mën di doon rek maa ko maa ko ko waroon a defal ba tax na ku ko liggéeyal danga am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am sama ngërëm waaye tamit sëriñ moor de la te ku am fay la te ku ko liggéeyal dana la añal eh, sëriñ saaliw mbàkke mu baax ma doon na wax ne ñeenti ngërëm yooyu de fuñ dajee dana ca dolli googam ak ci kilifa yi ñu baree bari wax nañ ko waaye loolu moom moo doonoon kàdduy sëriñ bi kon loolu mooy ziyaare boobu nga xam ne maam Cerno ak sëriñ Mayasin ummi ak sëriñ Daam Ture defoon nañ ko ci kër boroom Saam ak loolu yi nga xam ne mooy bëyit yu barkeel yooyu nga xam ne moom lañ fa waxoon indil nañ leen ko kon marasi yi nga xam ne moom lañu bind ci boroom saam yàlla dogal na yu ci bari ñu dajale ko mën nañ cee barkeeloo rekk tudd marsiya bu ne ñu tudd ca ay bayir rekk tàmbule ci marsiya cheikh mahamadul moustapha mi nga xam ne mooy taawu yoon wi moom dafa waxoon ne filul jalili huwa aljamilu fa yanbagi lil xalqi an yardaw bi filil xaaliqi dem na ba ca biir ne jamaal ma eh, eh, dem na ba ca biir ne xayzul aramili waddiaa fi jamiiha <clears throat> fi usrin aw yusrin li wajhi raziqi ah, moo doonoon xettal bi xettal bi ci rawatina ñi tumuranke jamaa al mafaqira wal ula musabba xatta saaba minhu baada suudil mafaariqi nga xam ne tedd nga moom ca ca ca la ko ko buur yàlla takkaloon nga yi kon dem na ba ca biir ni mu ne akrim bi rukkunam tahaddama baadama xat kaana mawan li sajiyi walwaamiqi waaw nga xam ne taxawaayi siñ Mor Jaara marsiya boobu lim ci indi macha allah waaw wax na fa itam nim taxawoo woon li fi maam li yi bàyyi xat saana bunyaanal juduudi xat saada xat saada بنيان الجدود وزانه بالمكرمات wa kulli birrin raaiqi kon loolu ci marsiyab sëriñ muhammadul mustafa ci la ci la root cheikh mamadul fadil nga xam ne dañ ko farale woon suñ moor mu def ci moom lam def ci moom ak yu baree bari yum nettali ci moom du ñàkk ne jamono dana ñëw ñu waxtaanaat ci incha allah moom dafa wax ni hiya dunya fa in sarratka yowman fa inna alxusna xaaqibatu sururi wafaatu sheykhi ahmada jaara amrun azimun min mulimmaati duhuri dem na ba ca biir muy wax ni nga xam ne ni la tax woon njaboot gi yépp te nekkoon dellukaayub ñépp hmm. وقد كان المعد لكل قدب جليل في خفاء أو سهور وهل للناس من وزر يواري سواتهم لدى لقيا وزير ومن لهم ومن لهم إذا ما ألح عليهم سطو الأمير سطو الأمير كن loolu ci marsiyeb cheikh mamadul fadil ci la ñëw bu ñu demee ci marsiyeb cheikh mamadul lamin baara danañ gis mu wax ne faqadna humaaman jaamian lilfadaili taqiyan naqiyan taarikan lirazaili muhammadu jaara sayqu man lam yajid lahu shabihan man lam yujad lahu shabihan yudaaha finnada man lam yajid lahu shabihan yudaaha finna yudaahi finnada kulla saa'ili waaw eh, dem na ba ca biir ne yabiitu yusalli summa yusbixu saa'iman wa ma juuduhu illa ka amtaari waabili yulaazimu awraadan wa cilman wa xikmatan wa ya'muru bilmacruufi fi kulli naazili falaw xaabidu larwaaxi xabila alfidaa fadaahu lwara turran bi kulli alafaadili loolu ci marsiyab Cheikh Mamadou Lamine Baara ci la ci la ñëw marché yëpp sëriñ Mor Buso moom mi ngi tàmbule ci hazihi daaru fitnatin wa xururin wa bala'in wa nakbatin wa sururi wafaatu amrin ma atat mithluha surufu duhuri dem ba ci biir xaada kullar bi xuluqin wa diinin وسقاء وفطنة وبرور loolu lépp ci marsiya sëriñ Mor Roqaya Buso ci la nekk di wax ni eh, eh, sëriñ Mor Jaara nekke woon sëriñ Ahmadu Buso moom sëriñ Mbàkke Buso marsiyal na ko wax ne ala inna hazihi daar daaru masaa'ibin wa daaru imtixaanin wantiyaabin nawaa'ibi daal dem ba ci biir ne muhammadu jaaral murtada man bi sabqihi aqarra zawul qurba maan kal ajaanibi fii wax na fi wax yu yéeme fa ayna allazi inda عند الدواهي ببابه يزاحم أرباب الحجى والمناقب فيخرج مسرورا يبث عليهم أفانين تبشير وتأمين راهب وأين الذي يدعو إلى سبيل الهدى بترقية تطوي مسافة طالب am na ci biir sax sew-sew bu rëy bum ci wax muy xereñuk Sëñ Moor ci mën a teqarti yenn yi wa kam muskilin an zil xija mutaxallixin tutaarixuhu lmaftuunu أولو التجارب فأوضح معناه الخفي بعبارة تقرب أقصى فهمه للمقاتب nga xam ne kon noonu la sëriñ Ahmadu Buso moom sëriñ Mbàkke Buso waxee ci ci sëriñ Moor moom Soxna Jaara naka noonu rakkam sëriñ cheikh coro marsiyaal na ko wax ne faqan na mammar jaara baxran mumiddan bil ula kullil buxuuri daal ne faqad naa waalidan min xablu lakin nasinaahu bihi kathral xuyuuri ñàkkoon nañ way jur waaye borom saam taxoon nañu fàtte ko ndax taxawaayam ci ñun mhm. marsiya bu bu rëy rëy la def ci moom am na ku ñuy wax ahmadu soxna mbàkke di sëtub euh, sayer soxna buso nekkoon ci borom saam doonoon borom xam-xam bu mag bu ngeen demee fële ca sibasoor ca fi mujje ba fa lañ ko denc doonoon ku rëyi garaat te bari xam-xam lool defal na ko marsiya bu yéeme ah, moom dafa wax ne li yabriz al muddacuuna al ilma wal adaba faqad taxayaba najlu jaara waxtajaba hmm. moom marsiya bi dafa dafa dafa lool te bari ay ay bayit yu yu daw yaram hmm. moom moom soxna mbàkke moomu moo ko eh, martial boo demee baba muy tëj martial bi nee na balla wa man fuxtum bi gayrikum indal muhaymini fal daw bi ma kataba bu siñ moor jaar yéen waa waa balla de ku ngeen jiitu rek xam ngeen ne siñ moor jaara mii eh, moo tax ngeen jiitu ko hmm. wal tazkuru wal tazkuru rusa inna rusa mutaazimun bi xaatimi rusli tansu xaatimin nujaba loolu la tëjee loolu la tëjee ay waayam moom moom sëriñ boobu euh, di ahmadu soxna mbàkke hmm. am na ci naar yi koo xam ne ki taxawaayu siñ moor jaara dafa rëy ci moom lool ba ba koy marsiyaal dafa wax ne yaa man yakunu xalifatan li muhammadin عز المرام فلا تكن كمخيد فمحمد حمال أبخال الورى وبفعله قد فاق كل مسود حمل المسقة واحتمال أذى الورى يا حبذا ذاك الأريب المهتدي الوارث المجد الرفيع الخالص متوارثا من محتد من محتدي marsiya bu neex a neex am na keneen ku wax ne li yabki li diinillahi man kaana baakiyan faqad hadda minhu rukunu fi kulli jaanibi faseyxu nasiina kulla mawtin li mawtihi saqiyin naqiyin naqiyi lawni jammil manaaqibi وهو السيد المزهور في الناس في الناس ذكره كما حاس عند الله أزكى مواهبه وساد جميعنا بحلم معود وإطعام مسكين وإرساد طالب مرسية bu neex a neex moom itam moom itam sëriñ boobu mooy naar naar boobu def na ko ci moom Mm, am na keneen ku wax ne alaa yaa mawtu wayxaki lam turaaci xuquqan lilgaribi walalyaraaci mm, tarakta annaasa fi xadbin jalilin yasubbu tifla fi hahdi radaaci eh, wayaa boom demee ci biir wax ne wayaa xayra suyuqi bila xilaafi wa la أدنى نزاع لقد فقت السيوف بلا عدل وجدت العلا بعد انقطاع marsiya boobu loolu ñëw na ci nga xam ne wax nañ ne mag ñi noonu rek lañ lañ lañ am na ko waxoon yaaman yaruumu xinan yaduumu xaabal kariimu xayrul jawaadi أبكيه دهري إس daaqa sadri wastadda amri bila imaadi moom itam marsiya bu neex la euh, ay naar lañ yoo xam ne ni ñoo bindoon ci moom <clears throat> am na naar bu ñuy wax muhammad saalum atumbi moom dafa waxoon ne yaa aala balla bu liitum bil xusuusi bi mawti aalimi ardil garbi muftiha nga xam ne loolu euh, ba mu demee ba ci biir mu ne maa kaana fiizan nawaaxi mithluhu walahu maathirun saalixatun lastu oxsiihaa maa zaala da'ban xiyaamu leyli daydanuhu anaalahu raxmatu rraxmaani muctiihaa moom itam marsiya bu neex la la defoon ci ci ci ci moom ku wax ahmad ibnu abdullah ibnu anqam moom itam defoon na ci ab marsiya boo xam ni bi ma ngay wax ca biir ne wa wafaatu zaaka sayqu amrun yanbagi taarixana minhu li axiri ma baqi akrim bi sayxin faadilin mutafanninin jamaa sariata fi sibaaka xaqaaiqi moom itam جمع المكارم والمفاقر كلها ثم ارتقى من بعد ذي للخالق يمضي النصيحة في الورى من أقرب أو أجنب من مؤمن أو فاسق yu baree bari la ca wax ci biir marsiya ba moom naar boobu sëriñ ma marsey ca njàmbur ñu ko daa wax ni braasu njàmbur moom itam defoon na ci sëriñ moor moom soxna jaara ab marsiya eh, waxoon na nuiya lii seyxu ahmadu waqta asrin dumuhi dumuuci tanhami fawqa suduri saqiiqu seyxi mamar jaara haza mawaahibuhu min almawla alxafuuri ah, daal di daal di lu baree bari ci sëriñ moor moom soxna jaara boo demee ca biir waxam ja moom sëriñ moor sëy nibraas moomu ma nga wax ne laxat bakati samaau li faqdi sayxin adimi sakli fi fadlin kathiri waaw huwa almahbubu fi kulli lbaraaya alayhi dahra ridwanul qadiri waaw moom moom itam loolu la loolu la wax ci moom yunus li nga xam ne yoon wi xam na ko muy zunnun moom itam def na ci marsiya bu bu yéeme te dawayam mi ngi ci majmuwa bi sëriñ abdul ahad dajale woon mu tàmbule woon ci allahu akbaru xaaba diinu walwarau fa ammaza albaraya alxamu waljazau yaa naaciyan xad naca haza alimaamu faqad nacayta cheykhan bihi alislaamu yartaficu أعني به الشيخ ممر جار ملجأنا به غدا الدين في الأرجاء في الأرجاء يتسع آباؤه أولياء كلهم صلحاء يا نعم ما نطقوا سرا وما صنعوا dem na ba ca biir muy muy muy wax wax yu daw yaram taqulu xadratuhu للقوم خاطبة يا قوم فاستمعوا مني العلوم وهو سن والإمام أعز الناس مرتبة سيخ الورى من به أهل العلاي أهل العلاي أهل العلا انتفعوا moom nga xam ne mag ñi loolu lañu bind ci sëriñ moo dem na ci ba ca biir mu ne wala tusaawihi ayan kaana min sanadi laa laa falaa yastawi dirhaamu waddibaamu walaa taqisu biman xad jalla martabatan yawman fahal ah, kon noonu la zunnun marsiya bee ngi ci mi ngi ci mm, majmuwa bi nga xam ne Cheikh Abdul Ahad moom dajale woon kon daal loolu luñ doon barke loola marsiya maa ngi jéggluwaat bu baax nag kilifa gi euh, maa ngi jéggluwaat bu baax kilifa gi di sëriñ Abdou Samad di suñu kilifa di suñu wayjur di suñu sëriñ maa ngi tuub bu baax itam ci guddal gi nga xam ne moom laa guddal euh, dama njortu rek ne euh, lu mu lu mu bëgg la rek dama dàkke foofu rek moo tax ma ne naa eggale waaye waxtu wi waxoon jot na bu yàgg-yàgg maa ngi koy tuubal bu baax guddal gi di tuubal mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ëtt bi yépp guddal gi ñu guddal bëgg rekk eh, njariñ lu yaatu moo tax ñu def ko noo ngi dollee santaat sëriñ tuuba bu baax nag tey ñaanal seex muhammadul muntaqa mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi suñ boroom def ci ak wéram aku fanam mu def ci kémaan jàgg fi lool wér lool ba eggale te ñu ànd moom liggéey bi noonu lañ koy ñaanale eh, kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi kër borom saam di sëriñ Abdou Mbàkke ñu koy ñaanal moom itam di ñaanal itam suñu kilifa di jëwriñi borom saam muy Serigne Cheikh Mbacke eh, ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ëttu kër borom saam bi yépp eh, ñu leen di ñu leen di jéggalu di leen ñaanal di ñaanal mboolem kilifa yoon wi yépp te di leen ziyaare suñu wayjur Serigne Moustapha Absa di ñaan yàlla mu teerooko ko yërmande yërmande jamu taamul Eh, niti sëriñ Touba yi mu teeroo ko ko te dugal ñu ci tawféexi sëriñ Touba maa ngi iya salaat suñu cant bu baax ci suñu kilifa gu baax gi nga xam ne yittewoo mbirum mag ñi ku ne xam na ko ci muy sëriñ Abdou Samad noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax lii rëy na lool ci ñun wax dëgg yàlla te lii moom dañoo jàpp ne rekk dañoo liggéeyloo ngir ñu jariñu ah, moom moo ngi koy sant bu baax ci lii eh, di ko ñaanal yàlla lim bëgg ci yoonu maamum wii moo ko xam yàlla na ko ko sëriñ bi defale nu kawe njort ci barkeb sëriñ moor moom soxna jaara noo ngi santaat bu baax itam suñu mag suñu kilifa sëriñ abo mi nga xam ne ndigal li ci moom la jaara maa ngi jéggalu bu baax nag su ma juumee ci wax ji wala ma ëppal ci wala nu mën di tëdd rek maa ngi koy jéggalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokku muxtaar mbàkke moom sëriñ Moodu mbàkke muxtaar moom sëriñ muxtaar xëri moom borom saam ak soxna faati mbàkke moom sëriñ cheikh pend buyo moom sëriñ moor moom soxna jaar maa ngi tuub bu baax mbàkke tey jéggalu jërëjëf